waxawoon ci li jiitu kon comme ni ko sëñ bi defe woon ci sancam dëkk bi wajaalu daaban maskana taallumi wa mawdu alfikrati wa tafahumi wajaalhu maskana alxuruji min zulam li nuurin wakfu anhu kaydu man zalam kon ñaari mbir feeñ ne foofu ñaari point yu important benn bi mooy nu ñuy fexee ba génn ci zaluman ak jahula mooy dindi ak réer ak jañ ak tooñ kon ndekete xam-xam ak li koy suuxat moom ak ay valeur ñoo ànd kon xëy na mun nañu wax ni lii nga xam ni moom la euh, école bi am ci problème tey kon xëy na valeur yooyu nga xam ni dañ ko xaw a fàtte ci njàngale bi wax naa sànq ni dañu am ministère bi mu tudd éducation nationale bi war a yar xeet wi waaye li ci ëpp jàngale lay def kese mission essentielle éducation kon xëy na foofu am na lu xaw a sooxe mu des nag daara moomu nga xam ni ci moom lañu ñu yaakaare mu war a indi solution moom it dafa indaale ay problème problème mooy tey ci réew mi booy xool dafa am ñoo xam ni dañu jàng bëggee ci xam-xam yépp ci kàllaamay nasaraan ak ñeneen yoo xam ni ci kàllaamay arab ci la ñu jànge ñooñu nag ñaari catégorie lañ def seen bopp te nee nañ kat dañoo bëgg benn nekk benn citoyen benn réew mais ñaari catégorie lañ ñi tubaab yar wala ñi yare école bi nga xam moom la ñu naan école tubaab même bu tubaab yi demee sax école tubaab lañ ko ba léegi ak ñi nga xam ni ñoo yare école donc Sénégal kon bu ñuy wax dañ naan kee ma nga école arabe ma nga école français nag may laaj ana école Sénégal kooku laaj la bu ma laaj. kee ma nga école arabe kee ma nga école français ana école Sénégal bi nga xam ne moo war yar former sénégalais bi nga xam ne mooy citoyen sénégalais ak ay valeur valeur yi nga xam ni benn ci ndonom yi waru ci manqué ndono lu mu jëlee ci culture africaine ndonom ci l'islam ak ndono aussi bi nga xam ni tubaab yi tamit def nañ ci ñetti siècle am lu ñu fi bàyyi te ñooñu ñett yooyu yaakaar naa ni benn maanaam mënoo benn mënul dem bàyyi sa morom loolu lépp moo forme sénégalais bi nga xam ne mooy sénégalais bu tey xaw ma nag bi nga xam ni mooy sénégal euh, idéal maanaam misaal yi bi nga xam ni ku ne mi koy xalaat mais le sénégalais boo ko xoolee ci loolu la jógee mu mel ni kon dafa am problème pour ñaari catégorie yooyu mun a waxtaan mun a am dialogue seen biir mu mel ni

te dañoo waroon di xeetale xam-xam yi dañoo waroon di xeetale xam-xam yi mais dañ leen di xeexale mel ni am na njàng moo xam ni ki jàng li rek moo ko war a jàng am ñeneen njàng moo xam pour ñeneen ñi la ba mu dem sax ba am ñoo xam ni suñ ci daara ji si lañ bokk am loo xam ni ñoom dañuy yaakaar ne ñoom waruñu bokk ci loolu loolu tamit xëy na benn problème la bu am ci daara ji te benn góor bu naan alaaji Ndiassa Mbaye ku ne xam na ko ci enseignement arabe bi mu wax ma benn bayit mu ni ida kunta ida ida kunta lam taarif li nafsika xaqaha hawaanan biha kanat ala nnaasi ahwanu ida kunta lam taarif li nafsika xaqaha hawaanan biha kanat ala nnaasi ahwanu mu ni boo fekkee réere nga yow sa doyo yow sa bopp ba doyo dal sa bopp

wax naa léegi ba tudd dawla umawiya mais soxale ci andalus rek nga xool ku mel ni ibn rushd nga xam ne moo bind fasl baqaal mooy liñ tubaab bi naan le discours décisif mais moom dañu war ragalul benn xeetu xam-xam loo indi rek xaj na ci daara daara yaatu na waaw daara yaatu na mu ni laa yaxaafu inna alxaq laa yaxaaf min alxaq amul Donc mën a ak beneen dëkk comme yor donc mu aussi que ci wàllu daara ji aussi comme ni Ibn Rushd waxee kooku tamit jar na indiwaat mooy li wax li ñuy les xam-xam yi te que fekk ñuy xam-xam yi mais ban solution pour dialogue boobu am parce que Sénégal mënul mukk ci sama gis-gis gu ñaari catégorie Beaucoup Sénégal Sénégalais ko ku nekk indi ci li ci indi sama sama gis-gis la ñi nga l'école bi l'école nasaraan ak ñi ci daara nous amul ay pont yu euh, synthèse bañ cay jëlee mu nekk tabax citoyen sénégalais bi citoyen éducation économie crise lay

al ilmu nurullah mu mu fàttali ma ba léegi tamit ci samay taawilaat la te xam naa lottu naa ci ci ci mbind mais parce que xam nga suñu kilifa yi ñu am dafa am nu ñu bindee ni ñu bindee jamono bu ñëw man am naa pas-pas bu wóor ne jamono bu ñëw mën na ci jariñu ci dégginam loolu moo jox seen bind universalité xam nga ba léegi boo koy euh, pour ma tooñ inspecteur kon kee ma nga bokk ci waa umul qura ñee nag ñu nga ca xusulu kaysar waaw waaw xusulu kaysar ak umul qura ñoom lu leen mën a taxale xanaa lan nooru nooru azimun qad yara bihi xusuru kaysara man kaana fi umul qura makkata xayru xorom ci jës kon yaakaar naa ni ndegam civilisation yu wuute yooyu la l'islam fexe ba lëkkale leen ba ñuy def dialogue de civilisation dialogue de culture ba mu indi richesse bi nga xam mu xawoon ci Andalus ak euh, Bagdad bi nga xamee ni euh, dawal Abbas yi am na te ku ne xam ne diggante huitième siècle euh, de de l'ère chrétienne ak ba douzième siècle ba ci ba mu dawal Abbas yi di jeex xam nga dawal Abbas ya 750 ba atum 1258 diggante boobu xam-xam li fa meññ ci xam-xam kenn xamul nu mu tool donc yaakaar naa loolu nga xam ne l'islam moo ko réaliser woon ba nga xam ne xam-xam boo jël l'islam moo ci raw muy chimie alchimia loo jël rek muy physique muy mathématique alxuarisme moo indi algorithme en mathématique ak yeneen ak yeneen kon lan moo xew est-ce que kon daara ji dafa commencé ragal modernité bi baatu moderne boo ko waxee rek xam naa mbirum daara moderne ak yooyu ak débat boobu dina ñëw mais pour man warul ragal modernité xam nga nan laa gisee modernité ak Occident ak Europe lu mu mën a indi rek lu mu mën a indi ci xam-xam lu mu mën a indi ci ñaw ci philosophie ci débat ci critique dama naan ci man la ko jëlee ci sama héritage yu islam ci la ko jëlee man dama koy du ko lii dama koy sànni donc dama koy xaalee su ma koy nattalee ci alxuraan dama naan haadihi haadihi bidaatuna ruddat ilayna haadihi bidaatuna ruddat ilayna lu ñu mën a indi rek ci wàllu modernité fekkoon nañ ko fi

sanki dëkk bi tuddé ko ni dëkku xam-xam bo kon dafa bëgg lëkkale ko ak dëkk yaay nga xamni moy la cité vertueuse al madina al fadila ha ku melni al farabi le philosophe al farabi bi nga xamni moy dëkk bo xamni fess del ak ay ngeenel ci walu juk ak walu xam xam-xam kon loolu lañ bëggoon na samp te mag ñi lépp seen dëkk yëpp mu ma ñëwee ci maam seen xaaji Malik yi danaan nu kuma haadi mahallu istiqaamatin mahallu istiqaamatin ألا فاستقيموا مثل من قبلكم مروا مو méngoo كيب tamit li بي bi ادعوك ان تجعله دار تقى والعلم والدين ودار الارتقاء نانكو diini مو daaral irtiqaa خام خام ko def يالا اك dekku اك xam-xam dëkku ragal yàlla ak diine ak dëkk pour xam-xam meuna a nit donc il faut valeur yoy am ci kon bokku na ci li nga xamni ne indi crise bi dañu jëlé ay valeur ak éthique ci njàngale ma mu nekk au lieu mu nekk éducation nationale mu nekk instruction nationale instruction nag bu àndul ak éducation après day indi problème dama daan dégg ci magu daara yi ñu ni am na ku ci ni moom bu déggee ni étudiants yi gréew nañu neen dafay ba ci yu UCAD wala neen damay rus ndeysaan ndax ñun biñ daan xëccoo euh, ndeste yi ci daara ji wala ñuy yor suñu bool lu ñu lekk euh, ma dégg étudiants yi grève damay rus man man mi nekk ci ci daara ji yooyu yëpp ma ni xoolal lu mel ni ci gàttal rek kunkaati man bu bu maam Serigne Touba ak lan yam ci teg yëpp ni ngay mën a déggoo métti ci sàkku xam-xam ak yami laaj mais gis nga dem fa mu jeexee la toujours nuur boobu day ñëwaat man daal def na ma problème xëy na jàngkat yi dañ ma lu tax nuur du ñëw du ànd xam-xam da fa mu jeexal la ni euh, euh, la tashari dunya bi uxra yaa fata man baa a nuuran bi du fa sa yaddam donc kon loolu moo li nga xam ni moo ŋànk sakkum xam-xam beneen bi yaakaar naa aussi école bi bu nekkee moom mooy éducation nationale kese te famille dugalu ci loxoom kon tamit du dem parce que li taxoon daara yi réussir li taxoon daara yi tabax lu ñu mën a tabax mooy famille dañ dugal seen loxo mun naa ni sax soxna dañ dugal seen loxo parce que tamit bari na borom xam-xam yu bari yu ñuy tudd la am solo ci seenum njàng ña ko taxawee dëgg mooy seen seen way yu jigéen moom moo ko taxawee ci mag yu bari mu delluwaat ca la waykat ba waxoon ni wa ida nisaau nachana fi ummiyatin radaa rijaalu jahalatan wa xumula mu ne bu ñu fexe ba bàyyi xale yu jigéen yi ñu màgg ci ñàkk a fer iji kon xamal ni góor ñi duñu fer mukk ci nàmp soowum réer ak soowum bu leen jëmale ci musiba kon loolu lu am am solo la yaakaar naa ni foofu tamit amul xàjjale rôle bi nga xam ne soxna yi war nañ ko jouer ak góor ñi man du ma ko tàqale ci sama vision may def nekk rôle suñu alliance stratégique seen seen seen nga ummu ko suma ummu ko suma ummu ko boobu nga gis ci xadis bi mu ñëwaat ci taxawaay yi famille bi war a am ci njàngale bi aussi donc bu ñu waxee xam-xam rek dañ naan ta'addub ak xam-xam mais boo waxee ilmu te waxoo ta'addub kon doo dem fenn kon nag loolu mooy valeur yi nga xam moo war a ñëw ci njàngale bi nga xam que na crise nga xam ne am na li ci ci débat nga Serigne Cheikh conférence bu am solo 2011 ñu nekkoon Caire ñu dem nous sa suñu mbokk ñi nga xam ñoo ci euh, euh, islamique yi waxtaan ak mais est-ce que Sénégal mën continuer ñi nga dañoo ci mais am xam-xam bi jàng nañ médecine jàng nañ agriculture jàng nañ lu nekk mais bu ñëwee météo arab la ñuy doon est-ce que mën nañu compter ci loolu est-ce que loolu du jur ëllëg injustice boo xam ne mën nañu indi ay problème ñu ni kon nañ ci waxtaan ma am benn euh, këyit bu ma bind tudde ko les arabisans sénégalais une contre-élite à l'heure des changements politiques bu ma ko bindee yëguma lu dul am ñu ko jël def ko benn mémorandum wan ko ñi nga xam ne ñoo nekkoon candidat ci présidentielle di 2012 len est ce d'accord d' ngeen pour bu ngeen gañee ngeen appliquer li ngor ci wax benn bi na ci bac arabe bi alhamdulilah benen bi ak section bi ñu bi alena kon wone ni yaakaar naa ni moy li ma waxoon rek tank ñaar yi nga xam dañ leen xéxalé xétalé wuñ leen ba ku nek li nga jang ak fam ko jàngee nga indi ko pour mu tabax citoyen sénégalais bi indi walam ci développement du jog ci crise te yaakaar ci crise gëna mag suñu système scolaire parce que système scolaire bu demee bay indi injustice rek nekkatul système scolaire wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu amin ihtidal bi hadiyi ila yawmi din mbokk yi fi teew yëpp maa ngi leen di nuyu leen ziar di leen wax salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu ci tàmbalee nuyoo bi nag ci kilifa yu tedd yi nga xam ne ñooñu mu ngi ci jataay bii ci ay kilifa yi diine ci ay sëriñ di ay mag yi daara yi nekk ci gox bi di ay eh, professeur université yi jóge ba Dakar ak mboolem mbokk yi nga xam ne ñoom teew di beral bu yooyu eh, Cheikh Mouhamadul Mahfouz nga xam ne ci diggalam ak ci ndimbalam ci la jataay yu mel nii di amee ngir waajal ko guddi gu tëdd bi mu jiital si ci wéru ñoom si waxtu ahad Gaye Fatma ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo koy jàppale ci liggéey may ñaan yàlla yokk ngërëm ak yërmande suñu sang bu baax ba di soxna may mun a radiyallahu anha nga xam ne ku ne xam ne ne yàgg naa bay waaram ci tomb bu tomb bi ñuy waxtaan tey muy éducation rawatina yar ci wàllu euh, diine xam ngeen ne moom dafa mel ne dafa bokkal ci ñuy spécialisé ci yar jigéen nga xam nga boo nee yar jigéen ne yar yaay te xaafis Ibrahima moo waxoon ci al ummu madrasatun ida ahdadtaha ahdada shaaban tayiba al aaraabi kon mën nañoo jàpp ne soxna Maymuna ab école la kon tey ñoom ci école soxna Maymuna bu la neexee nga ne centre de formation des formateurs sax la ndax fii yaakaar naa centre yu bëri ak yu bëri ci jigéen nga xam ci gox bi ak feneen yaakaar naa fi lañ defee seen seen liggéey boobu euh, kon loolu man toll ñàkk tàmbalee ko waxtaan euh, tomb bi ñu jox nag ñu ngi ko tënk ci at tarbiyatu islamiya نموذج لحل أزمة التربية الوطنية yaru wala jàngaleen lislaam xeetu jàngale la woo xam ne man na dugal loo xam ci saafara rëq-rëq yi nga xam ne moo gaar ci éducation nationale loolu bu ko bëggee leeral incha ci li waxtu yu may dinañ ko tënk ñeenti ñeenti tomb jafe-jafe yooyu wala muy crise lan mooy ay source fan la jógee euh, crise boobu nan lañ ko mën a ràññee ci ay mandat bi ci biir système bi ak l'islam yan jagoo la am yoo xam ne may na ko mu war a dugal xam ci saafara crise boobu kon loolu yaakaar naa ne mooy ñett wala ñeent tomb yi nga ci lañ war a waxtaan bi di sant bu baax a baax professeur par exemple ndax euh, laytaay na laytaay lu leer naa ci li ma war a waxtaane ma daal biñ ma boolee moo dama ne ko sant dama sant yàlla ndax jàppoon naa ne lépp liñ fi war wax yàlla yow ah, kon alhamdulilah ginnaaw laytaay kon ci tàmbali bi ñu xamale la rek waxtaane jàng ak jàngale waxtaan la woo xam ne du sàppi ndax solo si yar ak jàngale am ci diine am ko doxalin jàmm ndax bu dee ci diine jàng ak yar faral la dëgër pas-pas ak suuxat euh, ngëm yàlla ak tàggat ay cër ci jàmm yàlla loolu bu dee ci euh, wàllu diine bu dee ci doxalin jamono yi ci njàng lañ mën a sukkandiku ba tabax li ñuy tuddee développement te xam ngeen ne àddina ñaar yooyu doon ne diine ak doxalin jàmm kon bu leen éducation boolee ëmb ñoom ñaar mën nañoo wax ne éducation kon mooy dund kon lépp lu feeñ ci éducation ci ay rëq-rëq ak crise day feeñ ci dund moo tax mu mat di waxtaane di ko di wër ay euh, saafara yoo xam ne mooy euh, euh, mooy moo fi gën a jàngoro mu des nag ay laaj wala te laaj yooyu feeñ na ci te te feeñ na ci ne crise am crise am rëq am na ci njàngale wala ci éducation nationale feeñ na ci ñu tëggatam bi ne l'islam nga xam ne mooy diine pas-pasu askanu Sénégal am na ay solution wala wàññi na ay solution yoo xam ne mën naa saafara jafe-jafe te loolu droit la ci système éducatif bi mu jëlee ay solution taataan ko ci l'islam nga xam ne mooy diine te euh, yenu ak pas-pasu askan mu des nag ay laaj crise bi xam ne moo gàllankoor éducation nationale fan la bawoo lan mooy ay source loolu di première question xam naa bokk nañ ci kan baax euh, yan mandarga ñoo ñuy tegtal fii góor bi di ci système éducatif bi ñu li ñu yoon sax mooy yan jagale la l'islam am ba tax yenu maanaa ci fajal ñu jàngale bi nga xam ne moom lañ jëm jëm ci éducation nationale kon yooyu wala wutal ay tontu laaj yooyu donte lu jafe de lu sew la lu bari risque la moo moo war a nekk tomb yi ñu war a faram-fàccee ci biir yoon kon mbokk yi baaxoon nañ bu ñu tuddee crise ci wàllu njàng ak njàngale xel yëpp dem ci grève yeeg xëccoo bi am ci diggante gouvernement ak. syndicat jàngalekat te loolu la ñuy tuddee crise de et de dialogue social maanaam rëq-rëq bi am ci dal gi war a am ci jàng bi ak waxtaan bi war a dox ci diggante góor yi ak mbootaayu jàngalekat yi day mel ne kon fu ñu tuddee crise ci wàllu jàngalekat rek xel foofu lay naam crise la bu jara waxtaane te lu fes la lu am la ci système waaye tuuti la ci crise bu xóot bi nga xam ne monsieur le ministre de l' éducation nationale Serigne Mbaye na ko ba wax ko ci bañuy ubbi de l' éducation de la formation en 2014 moo waxoon ne école sénégalaise bi jàngaleetul xam-xam ndax talu ko ndax ay grève première remarque école sénégalaise bi nga xam ne moom lañ xam jàngaleetul xam-xam ndax talu ko jàngale ndax ay grève mu ne école bi yareetul bu baax ndax yàqu-yàqu jikko yi am ci société bi yi ci école lañ koy gën a gis lépp lu la naqare ci biti yaa koy fekk ci biir école ba tey loolu le ministre de l'éducation nationale moo ko mu ne ba tey tàggatatul ndaw ak assurétul benn formation bu baax ndax li réew soxla ci ay loxo yu ko taxaw taxaw développement tabax ko école mënatu koo kon ñett yooyu école jàngalewul yarewul formewul vraiment loolu tënk la bu boo xam ne le la plus haute autorité de l' nationale moo ko wax en 2014 loolu rek doy na ngir xam la ne jafe-jafe weesu na ay garab ak ay xëccoo diggante gouvernement ak ay enseignants mu des beneen laaj mooy crise boobu fan lañu jógee crise bi crise éducative sax crise scolaire gën naa yaatu crise éducative système bi système bi crise bi ko gàllankoor buñ ko càmbaree dëgg-dëgg mi ngi dellu ci dafa nuru day nuru góobu judduwaale wala maladie bu ñu judduwaale ndax moo ñu toppee ci la Sénégal di am indépendance tubaab yi nekk fi ab diir jóg di dem ba ñuy dem jàppalewul Sénégal pour ñu sampal seen bopp seen école mais dañ fee samp seen école ci weneen waxin ay école française au Sénégal lañ fi sampal waaye sampaluñu école sénégalaise li professeur Laurent Sall lan mooy école française au Sénégal mooy école boo xam ne am na gaaw am njëriñ parce que li ñuy jàng ci école am na lu am njëriñ parce que li universel muy science ak technologie ak yooyu loolu kenn gën cee kenn ñëpp ko loolu effectivement ñu koy ci école française bu nekk Sénégal bu nekk France te muy lu amal njëriñ àddina waaye daf caa rax doom yi leneen loo xam ne ñun soxla ko loolu suñu bopp la suñu bopp la muy suñu valeur professeur wax sax suñu valeur suñu éthique suñu la ni noonu la ko mboolem acteur yi nekkoon ci wàllu ci wàllu système éducatif noonu ñu koy yëpp jàngoro jooju mën nañ ne andi na ay jafe-jafe yu bëree bëri daanaka yëngu yu bëri yu am ci ay grève ak ay réforme ci système bi ci histoire système éducatif maanaam yëpp-yëpp boobu mooy li ko laal mooy li nekk suufam euh, wax nañ ne en 1968 grève ba nga xam nga am ci mois de mai ak juin en 1968 bokkoon na ci plateforme revendicative point yi ci gënoon a bés bokk na ci ñu méngale école bi ak euh, réalité sénégalaise maanaam école française bi ñu samp au Sénégal ñu sempi ko te samp fi école sénégalaise loolu nekkoon na ci revendication yi gën a fës ci euh, grève 1968 euh, yëngatu yëm àndal moom muy grève tax na gouvernement bi baraloon loxoom ginnaaw ginnaaw ginnaaw ginnaaw grève 68 bi ay réformes yu bare bare am non seulement ci wàllu éducation mais ci wàllu politique pour la première fois ñu un premier ministre mais pour la première fois Sénégal di am li ñu tuddee loi te loi d'orientation bu doon ci weneen waxee day mel ne éducation nationale pour la première fois ñu am benn loi d'orientation buy wax fan lañ bëgg a jëlee système c'était en 1971 la loi numéro

enracinement mooy fonk sa cosaan ouverture mooy ubbeeku ci yeneen xam-xam yi ba la nga ci war a jëriñoo nga jëriñu ko ci gis ngeen ne loolu kon ñaar yooyu mooy li sosoon loi d'orientation boobu ci wàllu aada ci wàllu cosaan loolu mooy li ci gënoon nga fës cee boobu lañ commencé africaniser yenn discipline di ko sénégaliser maanaam di ko méngale Sénégal c'était pour la première fois ñuy am lu ñuy tuddee ay histoire bu Sénégal ñu jàng histoire bu Sénégal wala ñuy jàng géographie Sénégal wala ñuy jàng littérature sénégalaise wala littérature africaine c'était pour la fois après la loi d'orientation 1960 ci même temps dugaloon nañ ba tey théoriquement dugaloon nañ li ñuy langue nationale yi suñu langue nationale ba tey parce que il faut ñu méngale école bi ak suñu réalité kon loolu benn la woon ci yi nga xam ne euh, la ko la juróom ñëw dëgg dëgg dëgg mooy méngale njàngale ak suñu réalité loolu tàqaliwutal système ba ay yëngatu yu am ginnaaw 1976 1977 78 79 mën nañ ne yëngatu yi amoon ci terrain ci wàllu système éducatif bi bokk na ci li tax Senghor gedd góor bi dem en 1980 parce que bu yow wala xam na mbir yi ni muy tëddee donc grève yeeg yooyu bokk na ci li tax moom mu réguler boo ci boole xëy na yeneen euh, facteur politique waaye ba mu demee président ci discours bi mu njëkk a ci nation bi en 1981 ca la woote li ñu tuddee état généraux de l' éducation et de la formation mu amoon en 1981 mu nekkoon beneen étape am solo boo xam ne euh, lañ ci doon jooytu ba tey moom lañ fay jooytu rek mooy ñàkk a école française bi ak suñu réalité euh, sénégalo africaine ba tax na euh, école conclusion conclusion maanaam la lañ tënkee ca euh, euh, état généraux yi am na benn concept bu bees bu war a génnoon mooy l'école nouvelle école nouvelle en fait am na ay mandarga la ko doon mandargaal mooy ne danañ gën a bàyyi xel euh, réew mi danañ dugal langue nationale yi danañ dugal éducation religieuse ci école publique c'était en 1981 quatre-vingt-un lañu njëkk xalaat ne éducation religieuse war naa tuuti ci ci système éducatif ca lañ ne arabe am na importance war nañ ko dellu gëddëm dugal ko ci njàngale bi waaye ca lañ sosé benn commission de réforme euh, de commission nationale de réforme de l'éducation et de la formation nga xam ne moom moo waroon a tëggaat beneen loi d'orientation maanaam constitution ba fi amoon 71 màggat na ay réalité yu bees juddu na nit ñi yeewu nañ sàpp nañ nañ dugal seen réalité ci biir système bi kon war nañu tëggaat beneen loi d'orientation waaye loi d'orientation boobu am ay gàllankoor yu bëree bëri euh, le professeur Iba Der nga xam ne moo nekkoon ministre de l'éducation nationale nettali na ko ci benn interview mu am ne loi d'orientation bi dafa doon jàmmaarloo ay jafe-jafe yu bëree bëri ndax kiñ ñu doon tuddee Jean Collin moom moo nekkoon le secrétaire général de la président de la république amoon taxawaay la ci réew xam ngeen ko moom la Iba Der Thiam ne moom moo bëggutoon ndax li ko ci xawoon a déranger nee na mooy langue nationale yi bëgg a dugal ci système bi maanaam méngale ñi bëgg a méngale système bi di ci suñuy làkk Iba Der Thiam nee na Jean Collin moo yàq programme ndax moo ko gàllankoor moo tax mën nañu ne lu yor maanaam ndax. de 81 en 80 en 91 benn loi d'orientation génnut 91 la ñu doon génne benn loi d'orientation bu bees bi nga xam ne moom la ñuy jëfe ba tey jii kon loolu lu yenoon maanaam ay mbir yu bare bare jaar ay réforme jaar lépp rek ngir méngale système bi ak suñu réalité en 2002 bi président Abdoulaye Wade ñëwee dugal éducation religieuse ci système bi créé ay école franco-arabe créé ay daara moderne et cetera et cetera loolu lépp di ay jëf yu am solo waaye ba tey des na ci 2014 comme ni ngeen ko waxee yaakaar na ñoom professeur Abdou Salam yi ci acteur euh, assise nationale yooyu ci lañ wax ci la le président Macky Sall ay ndaje comme ni ko professeur waxee woon sax ngir ñu càmbaraat njàng xam naa ne ndaje moom la ci tukkee na ci dikkaat ci kanam incha allah taala xanaa kay li mat a seetlu mooy malgré ànd ak yëngatu yooyu ak réforme yooyu yëpp crise bi moom mu ngi fi mu nekkoon ba tey kon crise bi ci yan anam lañ ko mën a jàngate fan lay méttee dëgg dëgg dëgg dañ koy tënk rek incha allah ndax am naa ne mbokk yi ñu dikkaat baax crise bi njëkk mooy njëkkoon leeral sànq mooy crise de stabilité et social mooy li gën a fës nag ci garab maanaam bu doon ak garab car yi moom la ñuy seet jamono ju ne ñuy gis ay grève yo xamne la cey juddoo yaakaar naa ne professeur sax dañ koy wax sax ba ki dem mo jaay li am dar ak ci université Dakar ak fenen ak fenen lool fu ñu toll ñu ko gis kon lool crise la bo xamne dafa euh, dem ba mu melne géré moy mooy règle jàng exception à peu près non la système bi tëddee actuellement lool nak am ay conséquences yu bari bari yu andi violence bi am ci bir biir daaray jàngukaay rayante be tojante bopp dàq de ah, ak yeneen ak yeneen ak nag loolu lépp day feeñ ci qualité njàng bi xam ngeen ku ne xam ne ne li ñu tuddee ñu quantum horaire quantum horaire dafa am solo ci am njàng ci wàllu at àdduna bépp noonu la ñuy natte yow ab diplôme mënoo am te jàngoo ca nangam heure boo ko amee ci ci fala fala rek day indi day indi day indi manque de confiance ci ci ci diplôme loolu na ay mbir yu bare ko am na ci loo xam ne question de souveraineté li tax guerre <laughs> bi di am ak yooyu ay question de souveraineté parce que xam ngeen Sénégal moom nañ suñu bopp en 1961 et en 1960 waaye